sëriñ ngóor jami mooy borom kéemaan di sëtub sëriñ Mor Ja ku ko xam xam luy kéemaan kii moo ñëw ngir dimbali jàmm ñi ci seen wér gu yaram lu waaye di jàmbat bu si jógee mu jug ci sa yaram ku rab jàpp jinde mbaa nga émurit mbaa ndox mu si wala nga néew kàttan ñëwal ci moom lépp lay dindi bëgg nga xaar gu leer bayre yokkute mbaa lu lay aar bul ko ñëwal seet ci ngóor mi ngi tëngeej are xaal hôtel 77 543 27 19 wala 76 371